Euh, euh, euh, bëgg bien sûr dinañu ñëwaat. waaw bëgg naa ñu ñëpp ñu nangu ne bu bu demul woon Sweet Beauté dara du xew. très bien Aïssatou waaye ba mu xamee ne dem na dinañu ñëwaat ci yow. lépp lu fa xew xew fa rek. mu kenn mënu ci dara alors dinañ dinañ dinañ ci ñëwaat parce que. Euh, du <laughs> est-ce que dem suite beauté bi c'est un c'est un début de preuve parce que on parle de viol dinañu ñëwaat ci loolu dinañu ci ñëwaat pour poser question boobu alors euh, euh, Kilifeu naka nga gisee déjà ci li nga xam ne moom moo am ci ci ñaari camp yi est-ce que euh, mën nga def opinion aujourd'hui sur le viol bu ñu gisee ne euh, beaucoup de contradictions beaucoup de manipulations également ci li nga xam ne moom moo am ci dossier bi de part et d'autre bon en tout cas c'est c'est euh, c'est une affaire boo xamante ni pour man ku yëkkati kàddu ba ciy wax xoolal que ni quatorze sénégalais dañ ci ñàkk seen bakkan ku yëkkati kàddu ba ciy wax xoolal que ni pendant une semaine ou dix jours ça a paralysé le pays mënuñ la wax perte bi ñu am bi ñu enregistré ci suñu économie mënuñu la wax ñaata blessé lañ ci enregistré. kon ku yëkkati kàddu ba ciy wax rek na nga ci wax wax ju responsable fi mu ne nii nag je pense que li americain bi naan the game is over mooy maanaam pom yi jeex na caaxaan rek bu faaxee séeréer bi nee na dëggay des aywa man damay am compassion ci aji saa comme ni ko ay Aïssatou amee ci moom parce man li may wax je parle en connaissance de cause lu ma leer naññ ni mi di la laay wax quand Ousmane Sonko parle de complot dama koy jox dëgg à deux cent pour cent ah parce que man j'ai été victime d'un complot li Aïssata wax léegi tout à l'heure ne lan moo tax bosu kilifa gaaw bosu diw gaaw bosu këlee gaaw parce que peut-être ci bosu kilifa ils ont réussi quand même la casting dañu dem jëli koo xamante ni c'est quelqu'un avec qui on a cheminé pendant vingt deux ans ñu ne ko demal nga waxtaan ak moom yaa xam ci lu ngeen di waxtaan bref donc ils ont réussi la casting wax leen li yëg li yëg li yëg dama ci dama ne woon duma ci kii mais pour wax sénégalais yi ñu xam que ni ñii nii du matin au soir doxu ci lu dul comploté ki nga xamante ni c'est un farouche opposant ou c'est un farouche citoyen bi taxaw di leen tegal ah, j'arrive maa ngi ñëw de oui que c'est Ousmane Sonko maa ngi ñëw de xam nga lu tax sama bos gaaw mhm. sama bos lu tax mu gaaw mooy que ni flagrant flagrant c'est flagrant c'est des vidéos malgré donte ci vidéo yi on n'a pas parlé de trafic on n'a rien parlé lu dul ah dinaa woote jëlal la rendez-vous pour ñu may la visa mais teewul jël nañ ko manipuler du bëgg ko déggalee askan bi nu mu leen neexee le juge a le droit de me convoquer pour ubbi enquête ne ma wéy dama dégg lii dama soupçonné lii le juge ne serait-ce que mu am soupçon un brin de soupçon ci Fatou Abdou il a le droit de te de de de te convoquer et am na droit aussi teg le mandat de dépôt mais il faut que mu am au moins une preuve wala mu am benn pièce jointe mon peut-être li tax mu gaaw loolu la mais sur le cas d'Ousmane Sonko lu tax muy cas euh, wu Karim Xrum Xax parce que dafa taxaw wax ne diw moo def lii diw dañ ko def lii te diw moo ko def peut-être loolu tax mu gaaw bu Pape Alé lu tax mu gaaw tamit comme li kii wax dafa brandir mën nañ jàpp kii ne ko way amuloo droit brandir yooyu yëpp mais bu Ousmane Sonko c'est-à-dire c'est le c'est le film comédie le plus nul et c'est pas marrant bëgguma nit ñi di ci wax di reetaan wala di ci am nu ñu ciy waxeek yooyu di ci am par parloo je n'ai rien contre Adji sax au contraire dama am compassion ci moom parce que dañu jël une fille boo xamante ni xamul jànjak joor benn naata xóona ñu ñëw loo ko jëf joo xamante ni mara day taali. jëf joo xamante ni yàq na dundu Adji Sarr maa ngi ñëw maa ngi ñëw de Fatou Abdou c'est très important xam léegi. une affaire boo xamante ni saa a commencé de quoi de viol viol la commencé Aïcha mu dem porte plainte bi mu demee porte plainte dajeek un capitaine digne de ce nom ñu jël ko yóbbu ko ne ko ah balaa ñuy mën a avancer ci dañu yegg ci sa kaw wala yegguñ ci sa kaw am na ku ñuy wooyee docteur ko moom mën nañu xamal ndax lii dëgg la pour mu nekk pièce boo xamante ni ça va nous permettre ñu gën a mën a xuus ci yëf yi ba ñu demee ci gynéco boobu ko boobu xamal leen tamit li mu leen di xamal ah waa ji ne man kat nag wax dëgg yàlla fii on ne peut pas parler de viol ñu ne ñu gars yi ñëpp jàpp ci liñ jàpp yëngal bëgg yëngal jàpp non waa ji daf ko violé violé wu ko dugg na fii génn fii léegi mais le gars taxaw défendre ne hey ñii dañu ma bëgg a fexe lii ñuy wax ñi amul suba amul ngoon amul ginnaaw suba dara amu ci. il le droit de dire que lii ñu taxaw di wax nii parce que nag avant bu buñ fàtte que ni dafa dañu ubbi un procès un procès da jéem a taqal deru doomu aadama boobu lañ njëkk ubbi commencé di wax daf ko violé violé wu ko dugg na fii génn fii kërëb kërëb te pourtant si c'était une euh, une affaire sérieuse doo ko dégg lu dul Ousmane Sonko dem na répondre convocation lan moo xew ah mu nga ca bureau bureau bureau euh, mu nga gendarmerie dugg na fi génn fi mais peut-être y avait plusieurs aspects yoo xamante ni il fallait peut-être voilà ñu ñu mu communication bi waroon a am fu mu jaar mooy ci justice dafa am kat koo xamante ni député la dafa am immunité dañu koy taqal dara. justice yoon daf ko soxla pour mun a wax ak moom balaa muy wax ak moom dafa am malaat moo xamante ni foog ñu jël malade moomu teggi ko pour mën a wax ak moom au moins tu prépares l'opinion mais ñan lañ gis ñoo génne di communiquer ñi nga xamante ni c'est des politiciens kenn xamul leen ci ci duñ ay juge duñ ay lenn ay politicien ñoo génn di wax di ba di wax ci benn adversaire politique donc déjà loolu rek moo njëkk a indi tesu complot ci xelu sénégalais yi ñuy dawal di dem di dawal di dem chaque jour lu bees génn loo xamante ni day wane ni lii kompaloo la boo xamante ni bu ñàkk xorom bu ñàkk fayda ñuy dawal di dawal di dawal di dawal ba bërki Dembo Ndiaye l'affaire Kaliphone bi fi am waa lan moo tax gynéco bi certifié ni Kaliphone yeggul ci kaw xale bi ñu gëm gynéco boobu ba pare ñu ne du ñu gëm gynéco bi certifié ni Ousmane ko sequt ak ndaw si euh, ba euh, sequt ak ndaw si li mu koy toppee li mu koy toppee ni il y a du ma ne sax yaa anguisuro c'est très clair que ni ils veulent juste parce que xalaatuñu ni ko Ousmane Sonko di waxee naan dossier bi kenn mënu ma ci sax garde à vue xam na lu tax mu koy wax. maintenant kilifa. maintenant li ñu bëgg. après après avoir après quand quand ils ont quand ils ont fini de de bi nga xamante ni dem nañ ba askan bi wëccu na leen ndax li ñu def ak comportement yi ñu am. ñu ne léegi ñii nga xamante ni il aspire à nous remplacer demain te dugg ñu ngi dugg ci xelu askan bi ak ci xolu askan bi parce que dafa am yoo xamante ni ay valeurs yu ñu jaay askan bi ak ñii nga xamante ni dañuy taxaw di wax ça fait depuis belle lurette pendant vingt cinq ans sur l' espace public may taxaw di wax kaay ñu fexe ba ñii tamit fu ñu taxawatee di wax rek askan bi dañ naan càmba yi ñoom ak ñëlee yem seen projet loolu la ils que képp kuy waxati ku am éthique am morale déontologie ñu lay xoolee bët waay waay kii nii ah kii lu muy wax loolu mooy seen projet. alors bu bu ñu la nii gis bi bi confrontation bi amee euh, faatu Abdou sérieusement il faut être sérieux ku nu ne da ngaa mu ne taxaw ne man violé wu ma Sénégal yëpp taxaw nag. mu nekk un procès Ousmane ko pourtant il a respecté euh, li ko justice teg. la procédure la procédure. biñ ko jëlee teg ko contrôle judiciaire dañ ko ne amuloo droit wax ci dossier bi il a respecté ça ci même moment boobu on a envoyé des émissaires ñuy toog ci plateau télé yeeg ci rajo yeeg fu ne di taxaw di wax lu leen neex teewul mu muñ affaire bi dëgg bal bi bi mu demee ba toll fi mu war a toll mu ne euh, li ma justice tegoon affaire bi mu ngi bëgg a yàgg. je veux vraiment qu'on en finisse avec ça d'ailleurs dootuma dem di signé ji parce que ça c'est du n'importe quoi yaa ngi comprendre teewul ñoom ñu continuer di yàq deru waa ji e il faut que ñu dem procès parce que procès rek moo mën a leeral yëf yi il faut que ñu dem confrontation parce que moo ko mën a leeral ay vidéo yi ñu yor ay audio yu ñu yor ay film bi ñu ko filmer non mais sérieusement ñu fexe ba confrontation boobu am ñu toog waa ji ñëw ne ko ah, yow de euh, euh, et puis que que les gens arrêtent de dire que ne Ousmane Sonko n'a pas répondu Ousmane Sonko bi muy def audition il a répondu aux trois questions bi ko juge ko posé Ousmane Sonko dans une confrontation foofu nag ay pièces jointes lañ soxla une confrontation ay pièces jointes lañ soxla de kii daf maa violé violé wu ma ko

c'est-à-dire cest gis nga euh, à la dafay dem ba nekk benn benn benn benn benn PlayStation ñu jàpp ñu di ñu manipuler ñu jàpp ñu duñu ñu fowee ci yëfu ñàkk fayda loo xamante ni teguwul fenn ñu ne ti ne déet euh, am na ñoo xamante ni taqee nañ ci yëf yi un dossier qui en instruction dama la koy dama koy wax et je le ici képp ku ñu ci tudd dañ lay woo ku ñu ci tudd dañu lay woo et une confrontation encore na sénégalais yi xam ni. Eh, eh, ki ji naa eh, da jàpp ne da nga jàpp ne Mamour Diallo bi nga xam ne yaayu benn ojo euh, euh, mais surtout sax waxatuma tudd sax mais Mamour Diallo dafa am ojo boo xamante ni bu muy promettre à Adji un passeport. dinañ defal la doit être entendu mais léegi lan yi bëggati dégg lan la ñu bëggati dégg ci yëf yi. cest à gis nga euh, moi je pense que ni des fois euh, nit ki kenn du ko topp sax ba dugal ko ci biir. sànq dama la bëgg a relancer. mais déglu ma mais kilifa euh, nga may ma foofu parce que. Aïssatou dafa wax sànq Fatou rek ma ñëw. gis nga c'est très important mais il ñu ni dafa ci am seen gagne-pain. ils te xam ni ñu ngi lekk ay deretu sénégalais. su fekkente ni aussi dafa am ñoo xamante ni ñu ngi ci ut. qu'ils arrêtent nañu arrêté parce que lii ay yëfit caaxaan la ñu ngi toox Adji Sarr moom yàq nañu àddunaam yaxet léegi nag euh, sorte Adji Sarr bi mu def après la déclaration de Ousmane Sonko Adji Sarr li mu wax dafa leer di nga xam ni xale bu ndaw boobu nga doon defloo muy def màgg na waaw léegi dinaa taxaw wax xam nga lan lañ bëgg a gëm loolu sénégalais yi fi mu ne nii moom kenn waxatul waxu viol moom kenn kenn kiwu ko mais que ni Ousmane Sonko da doon seq ak aji saar et après dafa ñaaw te pourtant ñi jàpp Adji Sarr manipuler ko ne ko defal lii <laughs> ay ay bàyyi jàmbur la ñu am ay dooma ah. nañ xaar suba bu ñu leen koy def ñii yónni nit ñi naan leen dem leen ngeen def lii euh, sare wala dem leen ngeen def ko ay sutu Diop Fall ngeen kii ko fi nañu jàpp ni ay yaayu jàmbur ak ay baayu jàmbur lañ nekk di ko def ëllëg bu ñu leen ko defee nañu nañu nañu nañu nañu qu'il soit sportif quoi il faut qu'on arrête nañu bàyyi caaxaan bi te ñu dimbali ñoog c'est c'est soi-disant de jeu boo xamante ni deful lu dul tooxal Sénégal très bien ñëwaat alors Moussa sànq damay wax ne le juge il prend quand même une décision dans son intime conviction bu fekkee ne na na à charge et à décharge ni ñu koy waxee ci li nga xamante ne mooy ñi seen xam-xam màcc ci wàllu droit et pour loolu dañuy wax ne le juge bu koy def dafay tegu ci ay preuves mais aujourd'hui Adji Sarr devant le juge pas de preuve même si avocat am dégg nañu mu ne Adji Sarr li mu yor da koy denc ba xëy na bu ñu bu ñu demee procès yow naka nga ko jàppee. waaw xam nga euh, dossier bi moom comme li ñuy wax rek dañ jàpp ne ñun fait divers la boo xam ni dafay divertir sénégalais yi parce que sénégalais yi am nañ d'autres chats à am na yeneen urgence yoo xam ne war nañ ci taxaw euh, bien que nag ñun tout au début ba jusqu'à présent dañuy réitérer sunu soutien à Ousmane Sonko jàpp nañ ni sax ñu ñëw ñi ko njëkk a soutenir ci épreuve bi nga xam ne moom moo ko daloon te ba léegi ñu ngi ko ci soutenir en atteste le président Macky Sall à l'époque dama ñëwoon na ba couper sax signalu seen TV parce que saa yu amee lu ko met ci président Bougane wala gëm sa bopp rek li muy njëkk a attaqué mooy organes yi loolu dara warul ko woon muy bi nga xam mu ngi doon apporter le président Ousmane Sonko. waaye itam ñu jàpp ni ñoom ñaar ñëpp dañu am intérêt à ce que affaire bi vidé ko ñu tiré ko au clair maanaam sénégalais yi jàll ci leneen parce que am na yeneen urgence actuellement prix yi nga xam ne ñu ngi doon wax naan dañ koy baissé am na yu commencé waat di yéegaat soble bi ñu ngi ñuy wax ni léegi léegi yokk waat na. carburant bi ñu ngi ñuy wax ni dina yokkuwaat. suukar bi dana yokkuwaat leneen leneen dana yokkuwaat. am na ñoo xam ne ñu ngi dans les liens de détention ñu ngi feebar ñu ngi wax pour ñu leen di jug ci seen i cas am na ñoo xam ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpital yi amuñu foo xam ne ñu ngi leen jëlal prise en charge am na étudiants yoo xam ni kenn orienté gul leen te année scolaire bi mi ngi commencé dem am na ñoo xam ne actuellement ñu ngi xiif te yor lu ñu lekk Sénégal chôme taux de chômage mi ngi gën a enflammé yooyu yëpp mu nekk ay question yoo xam ni le président Macky Sall ko doon jël à bras parce que li ko fi dese bareetul. mu jéem a apaiser climat bi jéem a jubóog sénégalais yi waaye li muy def nii tey du cërëm parce que jàpp nañ ni même bu jëlee opposant yëpp bayoon na leen li daloon euh, Yaya Jammeh ca bi moom moo ko na la dalaat parce que keneen ku mën di jàkkaarloog moom da koy gañe loolu même bu taxawee ni dafay taxawaat dëggal boppam sax day def troisième mandat wala troisième candidature